fekkee li nga xam ne mooy journée intégration bi rawatina suñu kilifa yi nga xam ne ñoom tamit déplacé wu nañ fii ba Sénégal tamit ñëw fekk si suñu kilifa ambassadeur tonto Bassirou seen macha allah kontaan nañ ci taxawaay bi bu baax a baax waaye balaa maa sori foofu dinaa nuyu képp koo xam ne déplacé wu nga ci pays boo jógee ñëw teew fii di leen massaw d'abord parce que coono bi ngeen daj démb ba tey te dara waralu ko lu dul APIA kon ñun dañ leen di massawu di leen gërëm parce que lii wane na seen volonté wane na seen bëgg-bëgg bi ngeen bëgg seen bopp d'abord bëgg Afrique bëgg seen réew loolu moo tax ngeen bàyyi seen effort yépp ñëw bàyyi seen borom kër yi bàyyi seen jabar yi bàyyi seen doom yi ñëw fekke journée bii nga xam ne mooy journée APIA fii ci Gambie kon ñu ngi leen di master di leen baalu àq bu baax a baax ci coono yi ngeen jànkoonteel démb ba tey APIA nag dinaa sawar fu ma toll am fierté di ko wax APIA ñu ngi ko créé léegi am na 4 ans pendant 3 ans yi passé yépp saay bu ñu bëggee jàpp bés pour def journée bu mel nii yàlla ak dogalam boobu corona bi moo fi nekkoon te foog naa la 21 janvier bi lañ jàppoon pour def li nga xam ne mooy journée APIA bi waaye yàlla ak ndogalam tamit ñëwaat suñu vice président fii ci Gambie génn àdduna kon du du teggin ñuy def journée boobu te dëkk bi ñu ne fi yaroo fi ba màgg lépp lu ñuy def fii leen ko defee dañ koy ànd ak ñoom ànd ceeg ñoom loolu moo waral ñu puus ko ba tey la 28 pour def ko di sant yàlla bu baax a baax ndax woote nii ñu wuy sa la yombut waaye xam nañ ni Apia vraiment jaral na leen tax ñooy ànd liggéey bi liggéey ko ba incha allah ba lépp luñ ci bëgg suñu borom defal ñu ko. APIA nag euh, maa ngi ko créé depuis 4 ans xalaat ko créé ko fii ci Gambie wutal ko récépissé tamit fii ci Gambie bi ma ko njëkkee xalaat foog naa sëñ bi wax na ko ak ñi ma ci àndal muy sëñ xaadim mii du ma jóg di ko sant di ko gërëm ba ma ko taxawalee ba saa si yàlla tey jii jógu ci ci xalaatam jógu ci ci ndimbalam. jógu ci ci poche am jógu ci ci lépp lu mu mën boobu ba léegi def na fi 10 jours dagg billet France ñëw toog fii ànd ceeg man di liggéey kon maa ngi lay gërëm sañ Xaadim di la ñaanal yal na la yàlla yokk ba nga yëg ko ndax ñu mel ni yow lañuy wut ñu gëm seen réew ñu bëgg seen réew ñu jàppale seen réew ñi nga xam ne dañuy jël wax dëgg yàlla Afrique porté ko xam ni ñun africain yi dañoo war a doon benn ñun sous région bi dañoo war a doon benn tey ñu ngi naan CEDEAO tey bu ma génnee fii di dem Sénégal dañ may laaj carte te pourtant carte d'identité CEDEAO laay génne bu may dugg Gambie dañ may laaj carte d'identité pourtant carte d'identité CEDEAO lay génne waa lan moo waral loolu war nañ ci waxtaane ba suñu gouvernement yi ah trouver ci solution ci frontières yi trouver ci solution ci bépp loo xam ne mën nañ ko trouver pour jàppale ñu rawatina ñun jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi fiy jóge di dem ay foire fu nekk ñu yenu suñu bagage di lang-langi wuti lu ñu am yaakaar naa ni tey war nañu ñoom gouvernement Afrique yooyu war nañu jàppale jigéen ndax jigéen amul toole soutenir ñu ci frontières yi gën ñoo yombalal li nga xam ne moom lañu bëgg a def. APIA nag ba léegi ma ñëwaat ci APIA porté wut benn porte parti politique féetewut fenn tamit association la te ci lay dox te loolu mooy norme yi képp koo xam ne yaa ngi ci di doxal politique yow la concerné ndax kenn ku ne am nga fi nga far. waaye APIA doxut ci politique li muy dox mooy ci ndawu Afrique li muy dox lan mooy boole jeune Afrique lan mooy boole jigéenu Afrique ñun Afrique ñun ñoo war a porter combat boobu balaa suñu gouvernement yi balaa ñoom ñun li nga xam ne population Afrique ñoo war a gën a intégré wu pour bu ëllëgee suñu gouvernement yi affaire yi gën a yomb ci ñoom. sama wax nag dama koy tënk parce que du ma guddal temps bariwut di sant ñëpp di gërëm ñëpp di beral nuyoo tamit. excellence ambassadeur ndax kilifa la vraiment ma yëkkati ko boobu ba léegi nag avant tey chaque jour maa ngi bureau fu ma toll maa ngi koy wax fi ma toll lu may def maa ngi naan ko fii laa yem fii ci lii laa ne mu jàppale ñu ci kon excellence ñu ngi lay sant di la gërëm ak tonto ñi nga àndal ñëpp bëgguma lim kii bàyyi kii waaye gis naa jàppale bi nga xam ne jàppale ngeen ñu ko ñi nga xam ne ñooy ñoo jóge Sénégal suñu kilifa yi tamit ah euh, te ñu ñëw ci délégation président gis nañ leen ñoom ñu ngi leen di beral sonn nañ trop démb ba léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm vive Avia jërë ngeen jëf bismillahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi alhamdulilahi rabbil alamina arrahmaani rahimi maliki yawmi diini iyaaka nahbudu wa iyaaka nastainu iyaaka إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقون الذين ينفقون أموالهم في سراء ولا يتقون والخافعون الناصي يسر لهم به الذي تنصر وكل ما يسره يسر السلام عليكم ورحمة الله taala wa barakatuhu yéen ñi nga xam ne yéen fi daje góor ak jigéen mag ndax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàcc ay contrainte parce que loolu moo waral suñu dajee fii pour que APIA doon porteur de solution pour les gouvernants ñi nga xam ne ñoo incarne pays membres yi il y a sept euh, ñoo xam ne ñi ngi ci biir APIA seeni représentants ñi ngi ci salle bi di toog bu ñu tàmbali waxtaan wi dañuy commencé ci ordre protocolaire son excellence monsieur Bassirou Sène monsieur l'ambassadeur defe naa ne man ak yow xamante nañu ndax noo bokkoon nekk Paris nga taxawal fa président Macky Sall nu bokkoon fa nekk man ak yow mu daan gisante di sottante donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax defe naa ne bu la yàlla indee fii ci Banjul ma ñëwaat fii ci Banjul fekk la fi sama xol dana seet lool ci ànd ak yow liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu APIA te ni ko madame bind jàll waxee ñun day dañoo am objectif boo xam ne moom la teg objectif bi nag bi koy teg dañ ci engagé wu ak ay suñu nawle ne leen am na ay difficultés yoo xam ne mën nañ koo tënk ci ñeenti pàcc bi nga xam ne moom lañuy ñuy commencé pour li ñuy wax euh, proposition yi nga xam ne ay court terme la long terme nag danañ ko wax après court terme yi mooy lii nga xam ne mooy association APIA doon ay porteur de solution yoo xam ne day def ay proposition des états pour que ñoom ñu mën a am ay possibilité pour bi ci jaar di résoudre problème yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy rencontrer bu ñu bëggee traverser de frontière à frontière ci seen jëmm ak ci seen marchandise loolu moo tax ñu créer APIA bi ñu koy créer nag dañoo wax ak suñu naw ne leen nañu tànn mu bañ a doon loo xamee ne day am politique nañu bañ a tànn loo xam ne day ànd ak i confessionnel mooy religion wala lu mën i doon mais nañu tànn aussi loo xam ne c'est non lucratif mooy wut xaalis taxu boo jóg loolu nag moom la madame Binta Diallo la présidente doon préciser rek waaye nag am na loo xam ne man en tant que chargé de relations extérieures mën naa ne benn parti wala benn aadama wala benn association mënut a dem sans politique donc politique moo yor am réew léegi nag ay objectif lañ am objectif yooyu bépp réew wala bépp président wala bépp doomu aadama boo xam ne pare nga ak ànd ceeg ñun xamal na yow ak ñun ñoo ànd loolu na ngeen ko xam kon nag ñu am nañu ay om ak i femmes yoo xam ne ci association bii ñoom ñëpp boo xoolee fii may toog ci jataay bi maa ngi ci jàkkaarloo ak ñoo xam ne ñii ay juge lañu ñii ay avocat lañu y des agents de douane il y des professeurs des man miy wax ak yéen chef de entreprise la boo xam ne depuis trent ans maa ngi foofee ca France di développer ay entreprise yoo xam ne damay toog jël sama crayon def benn projet boo xam ne ci 30 minutes soo ma joxee milliard ma liggéeyloo 1 million de personnes mën naa leen joon jox exemple très simple mën naa ne man tey su fekkoon ne maa yor Sénégal bala maa def dara li nga xam ne mooy suñu pêche bii su ñu ma joxee cinq pour cent ci pêche danaa ci def loo xam ne autosuffisance alimentaire la li ma koy defee nag monsieur l'ambassadeur yow yaay jottali kàddu yooyu kii nga xam ne mooy président de la république nga xamal ko ne ñii nekk fii ci APPIA ay nit lañ yoo xam ne ñoom c'est des gens qualifiés mais c'est des gens yoo xam ne benn détermination lañ am benn objectif lañ am mooy soppi Afrique ñu am ay qualité ressources humaines yoo xam ne ñu ngi ci association bi te kenn ku ne ci ñoom soo ko joxee budget boo ko joxee projet mu liggéeyal la ko jox nga jox ko financement mu defal la ay emploi loolu moo nekk fii kenn ku ne ci ñun am na qualification boobu ñun nag ñoo ngi tàllal loxo ñépp ñoo ngi am fierté aussi ci defe ko fii ci yi defe naa ne suñu objectif moo doon déplacer monsieur Bara son excellence déplacer le président Macky Sall son excellence waaye nag comme ni ko madame Binta Diallo waxee la présidente dafa daje ak dëy fii ci Gambie ñuy ànd ak ñoom naqar boobu di présenter suñu condoléance ñoo ngi prêt aussi pour que le défunt la terre le soit légère en tout cas loolu mooy li nga xam ne danañu ko def ko contradiction léegi nag ñu bëgg a joxe li nga xam ne mooy orientation bi nga xam ne mooy le plan de travail le plan de travail mooy lan am na fii ay ñeenti équipe yoo xam ne dañ na leen xanaa bi sax moo ko waaye dañoo bëggoon ñu def benn euh, groupe de travail bi ci njëkk mooy li ñu wax la violence faite aux femmes pourquoi les femmes yi sont violentes est-ce que c'est la raison c'est quoi mais les solution c'est quoi ñu dajale ay góor ak jigéen yoo xam ne defe naa ne am nañ ci koo xam ne mu ngi nii toog suñu gannaaw nga xam ne dafa am benn spécialité boo xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ne mu ngi ci def ci Sénégal loo xam ne kenn ku ne reconnaître na ko muy doon ab frère ci Madame Binta Diallo mii nga xam ne mu ngi toog ñun suñu gannaaw Souleymane Ali Diallo wax dëgg yàlla gis nañu liggéeyam di Dakar mu d'accord moom it ci ñëw ànd ak ñun ak liggéey bi di def contribution bu am solo ñu am aussi Salam yi nga xam ne moom it wax dëgg fii la nekk ci Banjul wax dëgg di def maa ngi ko xamee moom it foo ca Londres mu nekk Londres ma nekk Lille Lille ak Londres du dara dañ fay dem di jëfante di waxtaan ma woo ko mu ñëw moom tey jii mu bàyyi liggéeyam fa Londres ñëw ba fii yor ab atelier fii di fi liggéey ak femmes gambiennes yi porte nag moom it développement bi nga xam ne mooy l'auto-entrepreneuriat des femmes et des des des des jeunes ñu amaat ci aussi ñoo xam ne mooy monsieur le maire Mame Omar Mané nekkoon l'ancien maire de Rufisque Nord ma nekk ak moom Paris ñu bokkoon ak liggéey ma xam ci moom li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne mu ngi ko doon def ci commune am ma xam ci moom it ni mu maîtriser juge bi nga xam ne mooy les élus locaux moom day waxtaan aussi ci moom it ci li nga xam ne mooy ay collectivité bref ma bëgg nag xam tey ji yéen ñi nga xam ne yéen dajee fii ngeen defal ma benn travail boo xam ne su ngeen noppee su ngeen ma ko joxee danaa ci def benn conclusion def ko document boo xam ne dañ koy destiné le président de la république de sept pays yi nga xam ne ñoom ñoo bokk fii ci association bi en tout cas seeni membre mu ngi ci association bi fooy boobu suñu paree ci lii monsieur l'ambassadeur danañ la mastaw waaye document boobu finalité munta pare tey waaye suñu paree yow mi nga xam ne yaay suñu représentant fii danañu ñaan audience ci président de la république suñu joué nag mooy ñu ànd ak yow ba ci kanam président république ñu déposé ko ci loo xam xamal ne ko kat waa appuyé lañ doon dajee le 28 janvier 2023 mu ngi nii lii la ñu xalaat ne soo ko defee danañ am solution ci la violence aux femmes danañ am solution ci l'employabilité des femmes danañ am solution aussi ci la l'emploi des jeunes danañ am aussi facilité ci li nga xam ne moom la relation wax les relations diplomatiques des des pays africains loolu moo doon thème bi bu ñu paree nag document bi ay spécialités yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom danañu ci liggéeyat fii ak un ñu defal ñu benn document fini boo xam ne man ak madame Binta Diallo mii di présidente danañ ko superviser ba mu doon travail propre ñu yëkkati ko teg ko ci sa loxo ñu ànd dem ba ci président république nga jébbal ñu ko danañ ko yëkkati teg ko ci le président euh, loxo président baro ak président mbooleem euh, sept pays africains yi nga xam ne dañ cee bokk parce que ñun jàpp nañ ne l'immigration clandestine benn pays dong mënut a trouver solution il faut que Afrique parce que am nañu ay règlement am nañu ay normes am nañu signature am nañu engagé waaye nag nga xam ne tey bu ñu amoon benn solution bi ci jiitu ñun waa APIA bi ñu njëkk a xalaat mooy nañu concentré wu ba ñépp loo xam ne am nañ ko ci ay ressources ñu jëm di ko transformer suñu réew mi pour jox emploi li nga xam ne mooy jeune ñu fexe ba am li ñu wax maanaam échange bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a am li ñuy wax changement de transfert de compétences loolu monsieur l'ambassadeur message boobu na nga ko jàllale ci président de république xamal na ko waa APIA bi nga xam ne 90 pour cent des APIA yi cadres yi dañoo nekk en étranger donc nañ leen jox possibilité pour ñoom ñu échangé échanger aussi ñu amener ay solution APIA nag porteur de solution la proposition lay def état yi ñooy valider ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm léegi ñu bàyyi nag kon bi mu continuer ñi nga xam ne dañ leen war a jox kàddu bu ñu noppee ñu jublu ci liggéey bi rajim bismillahi rahmani rahim la tawil lana umrana sahi lana badanan wa hab lana rushda wa tawfiq yàlla ya malikal mulki ya man jaal xawadin am jami al wara ya adiyan rada maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sandi di leen gërëm monsieur l'honorable député euh, monsieur les ambassadeurs monsieur les conseillers monsieur le président de la république madame la présidente de APIA mon frère xadim Ndiaye euh, monsieur le maire euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu mbokk yi ñu fi fekk mbokk yi jóge Dakar jigéen ñu taaru yi jóge Dakar ñi jóge Mali ñi jóge Côte d'Ivoire ñi jóge fépp ci diaspora yi maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd nuyu bu gën a rafet ci turu monsieur le président de la république son excellence Macky Sall ak gouvernement ak monsieur le premier ministre Amadou Ba ak sama ministre des affaires étrangères madame Aïssata Tall Sall ak madame Anne Marie Seck maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant seen teewaay seen présence di nuyu waa presse bi nga xam ne ñoo jóge dakaar ak waa presse bi nga xam ne ñoom lañ fekk fii bàyyiwuñu kenn kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax alo alo ñëw na léegi waaw donc je disais que maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo jógee biti Dakar ñëw fii ñu jógee ci sous-région bi Mali Côte d'Ivoire ak dëkk yi Guinée-Bissau ni nuyu waa presse bi nga xam ne teew seen teewaay rafet na di nuyu honorable député di nuyu euh, messieurs les ambassadeurs les conseillers spéciaux de monsieur le président de la République autorité gambienne yi fi nekk di avocat bi nekk cour suprême di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal yi nekk fii di leen nuyu di nuyu surtout madame Binta Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy mentoram di xaadim Njaay jóge ba Paris di nuyu surtout xaadim euh, madame Binta ci moom lay tàmbalee wan leen ne jigéen joo xam ne bu mën góor la vraiment depuis que ba ma ko xamee ba tey ci développement laa ko xamee ci développement laa ko xamee muy jël alalam di jël dooleem di ko jox doomu aadama yi amul sikki sakk loolu waxuma pour bés lu ko neex wala lii mu toog sama wet déedéet dëgg la boo gisee bi ma waxee ndaje bi dafa war a am ma ne ko aussitôt danaa ci bokk maa ngi ci biir maa ngi ci biir ba ba muy jeex muy tàmbalee ba ba mu jeex maa ngi ci biir ndax xam naa ne yow loo dugg développement moo la ci dugal lu baax moo la ci dugal donc maa ngi koy félicité di ko encouragé di ko won ne maa ngi ci wetam te saa yu organiser lu mel ni na ko wóor ne tant que maa ngi fii ambassadeur dinaa nekk ci wetam dinaa ko ci gunge. thème bi ngeen indi nag dafa nekk thème bu ma neex. intégration africaine xam leen ne man nekkoon naa ambassadeur du Sénégal en Éthiopie représentant permanent auprès de l'Union africaine lu mot juróomi at nekk naa fa avant juróom benn at conseiller bi ñuy tëgg acte constitutif Union africaine bi fa la ma fekk ma jóge fa ñëw nekk fa ambassadeur donc la ma fa nekk xam naa bien lépp lan mooy problème mu Afrique intégration juróom fukki état ak juróom lañu ñu nekk juróom fukki euh, euh, souveraineté suñuy daje ak ak Amérique su suñuy duggee Union européenne ñun juróom fukk ak juróom la ñuy ñëw ñoom ñu ñëw nekk benn état dañoo war am intégration politique économique su fekkee dañoo bëgg di négocier ak la Chine d'égal à égal mais su fekkee da nga ñëw nekk un petit pays boo xam ne amoo sax 3 millions d'habitants nga bugg a jàkkaarloog Chine nga xam ne benn quartier de Guangzhou rek mat na 10 fois sa réew am mu munu négociation mu am foofu li ñu lay imposer rek ngay nangu par force waaye bu fekkee ne def nañu booloo nekk benn dinañ am poids looloo tax monsieur le président de la république ko seetloo ci biir mandam bi à la tête de l'union africaine muy plaider pour que Afrique am benn siège au moins au niveau du G20 parce que ñun ñëpp Afrique bu ñu dajaloo dinañ nekk septième PIB dans le monde maanaam ci wàllu koom-koom wàllu doole kattan capacité bu ñun ñëpp africain daje woon nekk benn septième puissance économique la ñuy doon donc war nañ en place ci biir g loolu lay loolu la xeex wone ko avec pertinance ba réew yëpp di dale ja Joe Biden Macron Arabie Saoudite ñëpp jàppale nañ ko ci boobu demande ba loolu dina nekk très prochainement incha allah donc loolu ndam lu rëy la pour monsieur le président la ñu ngi ko ci félicité ndax loolu xeex bu mag a mag la day tax ñu wone représentativité Afrique à travers le monde et c'est extrêmement important dañoo war a dem ci intégration donc yéen ñi koy daje fii à l'échelle bi gën a ndaw di ci waxtaan xamu leen sax li ngeen di def c'est important ñu dugal ko ci biir xelu africain yi ne dañoo war a ànd africain dañoo war a ànd c'est bon ñu naan kii malien la kii sénégalais la mais bu ñu newoon kii africain la rek yem ci ci la ñu gën a am doole donc loolu ci boobu xeex ngeen nekk man xam leen ne man maa ngi seen gannaaw ndax loolu dama ko gëm man militant panafricanisme la te yéen aussi vous êtes des militants du panafricanisme que Dieu vous garde Dieu protège am ngeen thème bu am importance bu ngeen sous thème mooy affaire u euh, mbas mi immigration clandestine beeg ñiy euh, màcc di dem ci géej gi yàlla di leen fu jëlee yaakaar naa ne année bii 2023 monsieur le président de la république nee na année sociale lay doon maanaam lépp lu doon def ci DER wala di ko def FONGIS wala di ko def FONSIS wala di ko def ci BND wala lépp luy mécanisme de développement wala loolu ñuy wax xëyu ndaw yi lépp loo xam ne def ko ci doon def dinañ ko yokkaat ci at mi ba tax na képp koo xam ne dëgg-dëgg yàlla da nga bëgg a toog liggéey rek yaxan sa bopp di nga am foo dugg téye fa sa bopp ba mën a liggéey ba mënal sa bopp dootu jaral ngay dem di mbëkk di dem bitim réew ñu di la toroxal man France laa nekkoon nekk naa Genève gis naa immigré yi coono yañ fay daj ñii nekk fii na xamuñu ko looloo tax ñuy sonn di mbëkk mbir bi di dem waaye boo demee ba foofu coono yaa ngi fay daj bos di nga di nga di nga xam ne toogoon fii DER jox la financement nga toog di liggéey moo gën fuuf ne da ngay génn dem bitim réew donc loolu ñu ngi ci am ñu ngi ci rafet njort gis naa ne aussi ci affaire violence faite aux femmes xam ngeen ne président de la république tax na ba ñu def léegi lépp luy affaire viole ak fi li ñuy xatale jigéen ñi def nañ ko dañ ko criminaliser def ko léegi crime ba tax na jigéen ñi normalement tey jii ku leen warul ku leen jàppalewul ñu dem ci kanam waroo leen a sonal waroo leen a bundaxatal ay jàmbaar farakatëkk lañu ay jàmbaar lañu guddeeg bëccëg cinq heures du matin ñoom ngay gis ci marché yi ñoom ngay gis ci oto yi ñuy dem ci luuma yi ñoom ngay gis ci ci ñuy dem ci ci embarcadère yi di jënd jën ñoom ngay gis fi ñuy jënd ay légumes ñu nekk fa fajar ba ñoo ñoo fa njëkk te ñooy mujj ba ñibbi donc jigéen dañ leen a war a teral dañ leen a war a jàppale ñooy sunu ndey sunu yaay di sunuy soxna dañu nekk jàmbaar dañ leen a war a jàppale kenn waru leen a sonal man loolu laa gëm. donc boobu suutam d'accord naa ci ak yéen maa ngi leen ciy félicité ndax loolu mooy li nga xam ne mooy wane ne yéen li jëmale réew mi ci kanam moom moo leen soxal maa ngi leen ciy félicité président de la république dafa gëm li li ngeen di def moo tax mu yebal délégation bu am solo bi jóge Dakar ñu nekk ci cabinet ñoo xam ne ñu ko jege lañu mu yebal leen pour ñu ñëw fekke si kii bi indaale leen enveloppe bu am solo boo xam ne kooku ku mu respecté wul du ko jox lu toll noonu donc maa ngi leen di félicité ñu nga xam ne ñoo jóge Dakar indi ko ak xol bu rafet muy Ndaw Fall ak ak ambassadeur Ndaw Fall ambassadeur bootul Ba seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na kontaan naa ci yéen ñëw ngeen fi il y a presque un an indi indi ambulance ambulance boobu amal na njëriñ dëkk bi te kooku président de la république moo loon joxoon ambulance bi pour ngeen indil ko réew mi ngeen indi ko ni mu gën a rafete jox ko population bi ñu ngi koy jëriñoo ndax képp koo xam ne yaa ngi doon fay 15000 si pour pour yóbbu sa néew léegi 3000 si ngay fay pour yóbbu sa kooku kooku avantage bu bu rëy la te yéen yéen a ko def yéen a ngi waaj ñëw aussi bientôt indi waa waa waa waa douane douane waroon na ñëw la 14 le 14 bii la euh, délégation boobu waroon na ñëw. pour affaire passe yooyu ngeen di wax ak xat-xat yooyu ngeen di wax man lu ma metti la tey ci suba rek benn ministre Gambie woo na ma fajar 5 heures du matin ne dañ ko am fu ñu ko téye ndax ndax frontière bi ubbiwul te bi ñu ubbee ba pare ñu di ko laaj ay kii bu metti na ma trop te su ma sañoon loolu du nekk te loolu lépp dañoo intégration moo des bu fekkoon ne intégration bi dox na ni mu waroon a doxee nekk fi naan Sénégal ak Gambie sax duñ ko wax mos na am ñu am confédération pourquoi ñu def loo xam ne day tax ba yenn loi yeeg règlement yi ñu dindi ko ci diggante ñaari pays ñun ñun ñun ñun on est pour ça et il faut il faut ñaari réew yi yëpp d'accord ko waaye am na ñoo xam ne fii boo déggee seen wax lu Sénégal def rek ñu ne woy Sénégal def ñoo bëgg a jël def ñoo bëgg a moom te loolu amul ñun dañoo bëgg nekk ci jàmm ak salaam collaborer ci soqalante di demlante ci jàmm ak salaam waaye bu kenn yaakaar ne kenn dafa bëgg a def dara ñun Sénégal jàmm ak salaam lekk président Macky Sall aujourd'hui li ko soxal mooy xëyu ndaw yi def na ci quatre cent milliards quatre cent cinquante milliards pour que ndaw ñi mun am xëy pour que dootuñu dem fenn loolu mooy priorité waaye priorité du di naan dafay occuper benn pays wala loolu xalaatu ko sax jàpp donc loolu dañ ko war a xam nangul ko ko xam ne loolu mooy waa développement bi. Euh, monsieur Khadim aussi am na lu mu wax ay proposition yu mu def ne moom mën naa liggéey loolu loolu ñun buñ ci jotee Khadim ñu ngi la ciy félicité jàmbaar nga dëgg dëgg yàlla jàmbaar nga donc loolu bis boo defee projet yooyu ñun boo ñu ci jotalee danañ koy danañ ko danañ ko transmettre par les voies diplomatiques yi nga xam ne buñ ko yóbboo dana egg ci kilifa gi ñun am boobu engagement jël nañ waaw incha allah voilà voilà kii fi waxal aussi les lawbe ak représentante xaritam euh, jigéenu présidente lawbe yi ñu ngi leen di sant bi leen gërëm di kontaan aussi seen taxawaay euh, lawbe yi ak gri ñëpp dañoo bokk ci Sénégal bu ngeen amuloon Sénégal du neex waaw ñuy félicité euh, homme de culture yi yéen ay homme de culture ngeen waaw yéenay tax fu ngeen nekk bu ngeen waxee yéenay fàttali démb fu bugg a xotteeku yéen a koy defar donc ñu ngi leen di féliciter vraiment on est fiers de vous voilà merci vraiment seen taxawaay rafet na wax yi ngeen fi wax rafet na ñi ngeen fi waxal ñëpp monsieur le maire ak euh, homme de culture bi nga xam ne moo joxe tableau bi franchement lépp rafet na daal mat na sëkk mat na sëkk maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen euh, euh, forum bi am succès bu rëy ñi fi teew ñëpp dellu siwaat ci réew ma ci jàmm ak salaam maa ngi ñaan dawalkat yi gis nañ li xew ci jamono yi metti na trop nañ daw ndànk bu ko defee ñu yóbbu ñëpp ku fi ñëw ñu delloowaat la ci jàmm ak salaam kenn bañ a gaañu ñu ngi feddaliwaat encore njaal bi nga xam ne ñu ngi koy adressé son excellence si Adama Barrow ak gouvernement Gambie yëpp ki ku baax kooku ba dara Diouf bi fi jógee yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare ajana man xamoon naa ko personnellement muy nit ku sedd guy mais ku mën a liggéey am kattan am puissance donc ni ñu ni mu sedde woon ci kaw suuf yal na ko suuf sedde noonu tey tey fa mu tëdd ñu ngi sant encore peuple ak gouvernement gambien ci niñ yaatale Sénégal yaatale communauté sénégalaise bi hospitalité bi accueil bi rafet na baax na ñu ngi leen di féliciter ci loolu di félicité aussi ñi nga xam ne mooy association des sénégalais de Gambie te ñu nekk fii ak ak ak ak dignité te ce honorable député bi moo ko jiite ànd ak ku ñuy wax Khadim Diop ñoom ñoo jiite boobu association di fi def liggéey bu rafet bu mucc ayib kontaan naa ci ñoom di leen félicité aussi di ñaan ngeen continuer ci boobu dynamique allahumma salli ala sayyidina wa sallim jërëjëfati pour seen équipe merci di leen ni xamal leen ne am na résumé yoo xam ne jot ngeen koo def résumé yooyu yëpp mu ngi ci programme bi nga xam ne mooy TDR yi nga xam ne moom lañu ñu war a liggéey dégg naa ñuy wax ci ne la transformation wax nañ ci ne développement wax nañ ci ne l'aide et tout ce qu'il faut monsieur l'ambassadeur wax na ko léegi ci suñu programme bi am na ci programme boo xam ne def nañ ko te dañu wax ne élément bi nga xam ne ñun jàpp nañ ne moo gën a indi ay difficultés sur l'intégration africaine mooy des contraintes administratives yi nga xam ne nekk na ci diggante pays membre yi defe naa loolu mooy li wax ci ne am na benn diplomate gambien bu ko woo ci suba nekk dañ koo téye pour problème de passe avant yaakaar naa loolu mu ngi ci travail jàpp naa daal li ñu fi wax lépp ak li ñu fi résumé lépp mu ngi ci biir dégg naa it ku fi wax ne nañu jéem a ànd ak homme politique ñu nekk seen wet ñun dañ ne suñu objectif mooy am suñu ambition am suñu programme liggéey ci ak ñi nga xam ne dañ fee nekk di gouverner waaye nag ñu bañ a am benn déviation ci objectif bi nga xam ne mooy objectif principal bi nga xam ne moom nañu ñu engagé woon ak suñu nawle président de la république ñëw na fi mbaa ne na fi enveloppe bi un million de francs moo ci nekk madame Binta Diallo jot na ci léegi kon lii nga xamee ne moom la def ci association bi def ko booba ak léegi tey la njëkk am enveloppe boo xam ne daa jóge ci autorité muy 1 million yi nga xam ne son excellence président Macky Sall moo ko jàppale ci bis bi danañ ko ci def ba mu jeex li ci def danañ ko mottali kenn ku ne xam na ne mu dem Binta Diallo mi mën nañ ko wax ñu njëkkee def programme bi 8 millions de francs CFA te benn million bi moo ci nekk lu ci dul loola moom mi moo ko ci def ba mën loolu na ngeen ko xam loolu daal laa bëggoon ngeen jàpp ko xam ko ñi ngi nag bëgg ngeen def ñu seen attention mooy dañoo bëgg madame Binta Diagne la présidente APIA honoré ñu suñu ambassade bii nga xam ne moom bu dul politique du dara c'est un homme de valeur un de qualité man ma xam ko depuis que France ñu bëgg koo remercier ci taxawaayam bii nga xam ne ñu ngi ko taxawaay ci Sénégal yi nga xam ne dañoo nekk ci Gambie madame Binta Diagne nga remettre ko médaille bi comme dafa am ay contraintes administratives ñu bàyyi ko mu yewi ko te ñun ñu continuer ci liggéey bi ba fii ba ci kanam incha allah ñu ngi leen sant baax di gërëm kon nag monsieur madame la présidente ñu jox la médaille bi nga joxal na ko son excellence monsieur l' ambassadeur Bassirou Sène merci beaucoup. symboliquement dañuy joxe médaille bi diplôme bi après nag ñu ñëpp na jël mais temps bi ñu koy mais bëgg nañu monsieur l' ambassadeur son excellence suñu la ko joxee mooy ñu une minute suñu panélistes yi ñu annoncé leen suñu thème après ñu daal leen bàyyi s'il vous